bisimilah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi nga xamee ne euh, ziar bi ñu doon amal fii euh, mu nekkoon deuxième édition fondation Cheikh Amadou Bamba Nord America ci niñ leen ko waxee léegi gis ngeen fañ ko tàmbalee ci kër Serigne Mourtala Mbacke Khadim Rasoul euh, kii di jëwriñam Serigne Mamor Mbacke teewoon fa nga xam ne tey mooy jëwriñu diaspora bi nga gis kàddu ya fa bàyyeekoo ci tukkee tàmbalee ci jëwriñu fondation bi di Serigne Fallou sàmb ba ci Serigne Mamor Mbacke ñu fësal fa ay kàddu loolee it bi ñu ñëwee ci kanamu Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké euh, fësalaat nañ euh, kaddu yooyu ñu dégg it euh, kaddu yi nga xam ne bàyyeekoo na ci sëriñ bi muy feddali kóllëreem waaye feddali itam li nga xam ne mooy ndigal li nga xam ne moom la joxe muy sëriñ Maam Mor Mbacké moom ma Mamadou Murtada di xamale ne kat moom mooy jëwriñu diaspora bi lépp loo xam ne lii sëriñ Maam Mor wax na ko moom sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké moo ko wax lépp loo xam ne digle na ko moom moo ko digle waaye lépp mu tere it moo ko tere Fallou Samb jëwriñ euh, ñu feggoo aussi ak Serigne Khadim Cissé di euh, trésorier fondation Cheikh Amadou Bamba Nord America euh, Serigne Sadibou Fall nekk Touba Atlanta Serigne Fallou Cissé moom it Atlanta ak Serigne Modou Kara moom Diop féete ci Dakar ñu bëggoon rek taatan ci Serigne Khadim ana Serigne Fallou ana ban jàngat nga am tey ci jataay bi nga xam ne am nañ ko ak Serigne Touba Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké bi euh, billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim euh, sëñ Modou jërëjëf ñu ngi siyaare bu baax di siyaare mbokki taalibe bi yëpp di siyaare mbokki jullit yi fu ci may nekk ci àdduna bi di seetaan mu mel ne comme jàngat bi tuddoon nañ ko tey dañuy daal di orienté rek waxtaan wi ci gis-gis bi mooy bi sëñ bu waxee ci ni ñu yëkkatee kàddu jëmale ko ci kër sëñ Tuubaa ngir sàmm ko ak saytu ko kon jàngat bi ñu war a am tey rek mooy laxasaay waat laxasaay waat fan lañ jëm loolu mooy jotaay bi mooy Atlanta lañ jëm kon jàngat bi ñu ci am tey mooy fondation Cheikh Ahmad Bamba def na foo step mooy ñëw ci sëñ bi wax ko ne ko samp nañ muy daaw indi addiya ñaareel bi mooy këru Chicago ñu ànd ci mu daanu léegi kon ñu ñëwaat tey ci sëñ bi ñu fi ñëw nañu indaal indaale benn pas-pas bu bees muy kër lañ nga am goo xam ne Atlanta gis nañ ko yaakaar naa sëñ Sadio ñoom daañu ci ñëw ci gën a leeral jëmmi kër ga waaye ñun fi ñu ciy waxee rek mooy gis ne ñi nga am avancement mën nañ koo tuddee avancement mën nañ koo tuddee ndimbalal sun borom lu nu sun borom di dimbalee ci bëgg wala yaakaar ju ni am ci Serigne Touba waxtu wu jot muy comme ni ko Serigne Cheikh Thioro waxee mbir Serigne Touba mbirum noppi na ba noppi kon jàngat bi ñu ci am tey rek mooy mbokk taalib yi gën a nosuwaat mbokk taalib yi gën a tënkuwaat mbokk yi gën a boolewaat seen bopp te xam ne lépp Serigne Touba ko moom lépp Serigne Touba koy def la ku baax ki waxoon ne teg leen seen loxo ci oto bi sëfoor a nekk ci biir di dawal su ngeen ci tegee seen oto nag mooy leen seen loxo mooy leen puus leen ngeen jàpp ne yéenay puus oto fekk sëfoor baa nga ci biir moom di dawal kon nag nga teg ci loxo ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi fan lañ ciy tege suñu loxo nag fi ñu toll nii mooy wax bi nga xam ne ci la fondation Cheikh Ahmad Bamba bëgg a wax jëm mooy liggéey bi fi ñu toll nii ñu nga jëm Atlanta lu ñu fay wuti laaj boobu doon laaj bu am solo mooy gis nañ ko loo xam ne comme biñ ñëwee Detroit sëñ saari bi ñëw fa mbokki taalibe bi yëpp ñëw fa ñu gis ne gis nañ fa loo xam ne ab cooj la ñu jënd ko def ko kër Sëñ Tuubaa loola nag mel melokaan woo xam ne ci àdduna bi doon na lu rëy doon lu rëy ci bëti nit ñi bi sëñ Sadio mu ñëwee ñu wax ne ñun de ñoo ngi gis loo xam ne ñun waa Atlanta fii la ñu xool jëm loolu yàgg na mat na ñaari at wala lu ko jege ne ñun waa at ak nga bokk subhanallah mu ne ñun waa Atlanta kon ñun fii lañ xool jëm muy ca euh, convention fondation foofu la fondation bi sosoon ba mu fa jógee nag ñu gàcc si nit ñoom Atlanta gépp suñu borom dimbali leen ñu gis loo xam ne yëfi jullit la ba noppi doon jàkka doon lépp ñu mën caa jot ci jotin wu sell kon nag gis-gis biñ ci ara am ñun waa fondation bi mooy dégg nañ waxi sëñ bi dégg nañ ndigalal sëñ bi kon nañ laxasaayu te jëm Atlanta loolu rek mooy ubbi gi bañ ñëwaat ci kàddu incha allah. jërëjëf euh, sëñ Xaadim Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bëgg fàllu ñu ngi lay nuyu di la ziar euh, ak yéen di nuyu euh, jëwriñ sëñ fàllu ak mbokki taalibe yi fi nekk yëpp mhm. waaye jàngat gi ñu am ci ci ci liggéey bi moom comme ni ko sëñ sa sëñ fàllu waxee ba noppi mooy xanaa ñu feddewaat suñu kóllëre ak sëriñ Touba. Mhm. te jéem a sax ci ndigal mhm. ndaxte sëriñ bi moo ñu wax ni que bu leen def dara ci lu àndut ak ndigal ndaxte ndigal dafa nekk charte di condition ci jëf ji ngay jëf ñu mën koo nangu bu ñu bëggee yàlla nangul ñu suñuy jëf Serigne Touba nangul ñu ko kon dañ koy teg ci ci ci ci ci ci pas-pas bu sell ba pare ànd ceeg ndigal te ndigal li nag weesuwul ndigalu Serigne Touba Serigne Touba ci boppam gisantuñ ko ci zahir waaye ñi nga xamante ni ñoo nekk ñoo fi nekk moom muy xalif bi ak sëñ Mamor bi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ci liggéey bi ak sëñ Fallou Samb mu chaîne bi di continuer ba ca ca gën a suufee kon ku ci nekk rek da ngaa war a xool ci sa jëwriñ lu mu wax nga def ko ndaxte eh, bu ñu fàttaliku eh, maanaam melow murid saadix sëñ Tuubaa dafa dafa ko wayoon muy ñeent te ngir bañ nga loru yow wala nga woru yow mi nga xamante yaa di taalibe ba ci njëkkoon dafa waxoon danga ngaa war a dëggu ci bëgg sa sab sëriñ taqoog ndigalam te bañ koo contre te lépp loo xamante ne nii maanaam eh, nga bañ a tànnal sa bopp dara mooy salabul ixtiyaar yi mooy lépp loo xamante ne moom tànnal la ko nga tànn ko te bàyyi sa tànna bopp su ko defee kon loolu mooy jëfe ndigal bàyyi tere rek kon bokk murit yëpp maa ngi leen di sàññ sami sama bopp ñu taqoo ndigal ndaxte comme ni ma ko waxee woo rek ndigal moom charte la ci mbir mi ngay def ñu nangu ko ci ndigal loolu nag ca lañ nekk ñun ñëpp nag alhamdulilah di ko sant yàlla ndaxte euh, ku ñu dimbale moo fi waaye ku mënal sa bopp nekk fii euh, ba tax ne comme ni ko ginnaaw bu ñu rafetloo siyaare bi yëpp ni ko sëñ Fallou Samb waxee Atlanta tamit ñi ngi euh, nekk ci tool bi di bay xam li ñu war ci suñu njaboot ak suñu mbokki taalibe yi fa nekk gën yaatal daawa bi muy woote Serigne Touba bi te mooy lislaam ji sell rek ba yàlla xéewali ñu bu ñu am béréb boo xamante ne nii macha allah xam naa da ngeen gis image yi ci ci ci ci ci vidéo yi di ñëw incha allah euh, ñu teg ko ci ndigal nag te sos ko ci principe yi nga xamante moom la sëñ Touba sose woon Matlabul Fawzayni te weesu wut muy li sëñ Mourtala waxoon na ngeen am këru moom daal wax sax kër sëñ Touba day wax ne këru lislaam goo xamante ni da ngeen fay xale yi di fa jàng alxuraan di fa def ay salaatu a nabi te mu ne salaatu ala nabi yooyu noonu xasee day Sëriñ Tuubaa yi doy na ci su ko defee lépp lu ñuy defee ci mbirum diine ñu ko fay defee te bu pare yaatal ko gan ñi mën faa dal yooyu ñu amoon béréb boo xamante ne ni am nañ ko depuis je pense 1994 wala 95 95 ba léegi yàlla dem dogal ba communauté bi màgg ba fi mu nekk nii xale yi xajatuñ fa ñun tamit événement yi ñi am yëpp xajatuñ fa ndaxte ñu ngi lor dëkkandoo yi moo ñu poussé ci ñu jéem a xool loo xamante ni dana dana dana gën a rëy loo xamante ne ni dañ koy tuddee institut islamique xaadim rasul loo xamante ne ni am na ah, jumaa ju ju complète la bu mat sëkk ak école ak jardin euh, nga xam ne école bi am na jardin ba ba primaire Euh, ak yeneen yi mu àndal yëpp ci biir xam naa loolu damay bàyyi Cheikh Sadibou faal mi nga xamante ni moom moo jiite woon projet Iqra boobu noonu mu gën cee mën a joxe ay leeral loolu daal lañ ci amoon ci ay ay leeral xëy na yeneen euh, kàddu ñëwaat incha allah ñu jëm cee topp salaamaaleykum. jërëjëf euh, sëñ Khadim Cissé sëñ Sadibou Fall moom mooy président institut islamique Khadim Rassoul Iqra dëppoo ak suraat boobu nga xam ne suñ borom subhanahu wa moom la jëkk a wàcc ci su kaw suuf muy jàngal. Euh, mel na ni dëppoo na ak contenu projet bi waaye eh, ci suñu gis-gis xam naa dinañ ci am édition spéciale am na euh, avancé bu am solo sëñ Xaalim junj na ko muy kër googee nga xam ne euh, taxaw na fa ndax mën nga ñoo dikkal tuuti rek résumel ñu ko ci tënk bu gàtt ana loolu nan la tëddee. salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu ziare sëñ Fallou Samb di ziar sëñ Xaadim Cissé di la ziar sëñ Modou ak sëñ Thierno. Euh, lii nag day liggéey boo xam ne ci njiitalu waa FONCAT noonu ko defee di fondation bi nga xam ne moo nekk North of America di fondation Cheikh Ahmadou Bamba jiite daayira yi nekk ci Amérique gi yëpp ñoom ñoo saytu woon ba gis ne jaadu na kër Sëñ Tuubaa yi ñu ut bërëb yi ko gën a yaatu xëy na jamono ji ñuy jot ndigal bi mu jigee woon ci sëñ Murtada Mbàkke ñun suñu gis-gis mooy bi nu sëñ bi neen nañu ut këru islam ñun ñoo jafoon ci suñuy xel na ay kër la waaye dañuy gis ne jamono jii ñu toll nag ñu ngi doog a gis la sëñ bi doon ñu wax maanaam mbir yi léegi weesu na ci kër ci ay institut islamique la ndax liggéey bi nu bëgg a liggéey jamono yooyu xajoon na ci kër waaye jamono ji may waxat yow xajatul ci kër te dafa am norme yoo xam ne moom la Amérique di doxee te buñ ko tegee ci norme yi dëkk yooyu di doxee ñun lii ñuy def ci biir kër yi xajatu fa ba tax na biñ ci waxtaanee waa FONCAP ñu dem teew ci seen assemblée générale bi nga xam ne moom lañ defoon daaw bi nu fa ñëwee ñun loolu dafa doonoon ubbi ko ci ñun ndax jamono yooyu dafa fekk ñuy xalaat lu nu mel waaye gisuñu ko woon fenn bu ñu ñëwee nag ba gis ñoom projet bi nu am mu am ko biir Detroit muy église boo xam ne dañu koo soppi kër islaam mu daal di tiggi suñuy bët ñu gis nag ba xam ne kon lii lan war a am ban fa jugee it ba fi may wax yow ñu ngi doon wër lu nu mel ba yàlla def ñu ñëw gis lu ni mel. gis lu ni mel nag mooy que béréb bu yaatu boo xam ne dem na 2.5 acres nga xam ne mën nañ am na fekk nañ comme mu nekk jàkka ba noppi ndax lu tax mu nekk jàkka ba noppi mooy 2012 église la woon waa ji jënd ko soppi ko jumaa waaye moom it dem na bay activité am comme businessman la koo xam ne day yëngu ci lu lu bari ay activité am daanaka New York la gën a féete te moom lii da ko doon def rek ngir yàlla ak communauté islamique ba fa nekk waaye mu dem tamit ba yorin bi diis ci moom ndax li ci ëpp ci ay activité mi ngi koy defee New York mu ne nag yéene moo doonoon mu deex ko ay jullit waaye mënu koo dellowaat yéeféer yi ba tax na wala boog mënu koo dellowaat chrétiens yi ba tax na ñun mu jaay ñu ko ci trois cent quarante mille dollars mu doonoon prix bu xéewale ci loo xam ne daanaka mën na ne mënoon naa dem ba sept cent mille dollars wala lu ko ëpp bi mu ko waxee it yàlla fekk ñu am ñun cent quarante mille dollars ñu yëkkati ko jox ko muy quatre vingt deux millions fii may waxeet yow nii deux cent mille dollars lañ ko deseel mu ne ñu tegu ci benn intéret ci ñetti at nu ñu ko fayee baax na kon loolu dañ ciy jàngatee ne li sëñ Fallou ne liggéey sëñ Touba moom oto bii dem la rek boo ci toxee sa loxo mu dem boo ci tegul mu dem waaw ndax ñun ku nu ne woon di ngeen gis lu mel noonu biir Atlanta mu jege downtown bi nekk ci site boo xam ne résidentiel la ba pare ñu accepte loolu comme commercial dafay doon bu boobaa loo xam ne ñun day day maanaam leer nañu ne yombul ñu gis ko am na jumaa joo xam ne mën naa jël trois cent personnes noppi na am ay jàppukaay am ay toilettes ñu góor ñeeg ñu jigéen ñi am nag ci kaw salle yoo xam ne pour jàngal xale yi niveau jardin ba niveau secondaire te salle yooyu am nañ ci lu mat dix salles ak benn salle bu mag boo xam ne mën nañ koo def salle de conférence mais it am nañu basement maanaam souterrain boo xam ne euh, tabax nañ ko ba mu noppi waaye yeggali moo des te foofu tey bu nu ko yeggalee mën nañ koo def dortoir maanaam tey bu fekkoon dañuy def internant xale yi mën nañ fay nelawee mën nañ ko def tamit mu doon salle de conférence boo xam ne dina jël 500 personnes foofu it ci kawam am nañ autorisation pour mën fa defaat beneen building muy salle bu mag boo xam ne day nekk salle de conférence ba pare it am parking yoo xam ne oto yi dañuy daw ba dugg ci biir nga xëcc say geet maanaam say bunt tëj ba boo nekkee ci biir di waxtaan kenn du mën a yegg si yegg si say oto waaw mu doon daal béréb boo xam ne moom euh, ñëpp ànd nañ ci ne lii sañ Touba rek moo nu ko mën a wan ci biir Atlanta mu jege dëkk ba ba pare nekk foo xam ne fu wóor la amul taxawaalu amul këf amul tere amul dara maanaam dañ fay mën a def liggéey bu sell. waaw loolu lépp nag bu nu ko amee dañuy delluwaat njukkal waa Atlanta di ci jiital suñu président Khadim Cissé mi nga xam ne moo yëkkati woon projet bi xool ay murit yoo xam ne ñu bëgg a liggéeyal sëñ Touba mu jox leen ko mu yooyu jël ko séddoo koog waa daayira bi muy li ma la wax rek schéma la boo xam ne dafa jóge fonkat wàcc ci waa président daayira bi mu tas ko ci daayira bi muy man ak waa daayira Touba Atlanta ba tey sunu borom def ñu am xéewal yooyu kon nag lu ñuy ñaan mooy kilifa yi nga xam ne ñoo yor liggéey bi di sunuy sëriñ ñu ñaanal ñu continuité bi sunu borom yombalal ñu ko xam na ne moom 120 millions yi ci des ñu fay ko moom kooku allah kulli alin sunu borom danañ ko yombal am nañ ci rafet njort waaye lépp solo mooy bu nu amee bërëb bi ba pare mbir yi nu war a def ci biir béréb bi muy njàngale gu nu war a jàngal xale yi ba nga xam ne yow bu boobaa dootoo nekk Amérique di xalaat sa doom di ko indi senegal waaye da nekk Amérique sa doom nekk Amérique di fa jànge ba wàccee fa arxuraan mbaa sori lool ci arxuraan kon daal loolu la ñuy ñaan kilifa yi ñaanal ñu ci te encore une fois nag di remercier waa Fonkat ñi nga xam ne ñoom ñooy yaatal ba ñun ñu mën a gis di roy ba toll fii ñu toll jërëjëf sëñ Modou looloo doon kàddu jërëjëf euh, Cheikh Sadibou Fall donc moom mooy président ICRA institut islamique Khadim Rasoul muy projet bu am solo ngeen dégg description boobu nga xam ne indi na ko. sëñ Fallou sàmb euh, waxtu wi xaj na xat na xaj na daanaka mën naa ni euh, lépp leer na waaye du tee nag ñu bàyyee la kàddu gi en tant que jëwriñu fondation Cheikh Ahmadou Bamba ndax mën naa ni waa Amérique yëpp a ngi lay teewlu ñu yebaloon la jox la ab liggéey tey nga ñëw jébbal liggéey boobu. kon ñoom yan kàddu nga leen mën a baaxee. waa jërëjëf sëñ Modou moom li waxoon ci tàmbali bi rek maanaam wax dëgg yàlla euh, dañuy tudd jëwriñ waaye daa ne fondation bi ñëpp ay jëwriñ lañu kon ni ñuy def mooy sant ñëpp muy góor di jigéen di mag di ndaw muy ñi joxe ak ñi joxewul sax ndax ku joxewut it am nga yéeney joxe di ñaani nag ñaan yi nga xam ne sëriñ bi ñaan na ko fii suñu borom jotale ci mbooleem jullit rawatina taalibe sëriñ Tuubaa yi nekk ci adduna bi yëpp comme ni ñu ko waxee sëriñ bi ci biir tam ñaan yàlla aaju yëpp faju diis ko sëriñ Tuubaa te bàyyi kook suñu bopp di dénkaat taalibe yëpp ñu maase boole suñu bopp nekk benn ànd liggéey ngir jëm yi sëriñ Tuubaa di sant nag mbooleem ñi ngi xam ne ñu ngi jàpp ci liggéey fondation Cheikh Ahmad Bamba kon ni ko sëñ Xaadim waxee dégg ko laa tafaalu shay'an bi xayri izni fal izni sartun fi xabuli sha'ni ñu sax ci loolu te xam ne lool moo nuy jëriñ tey moo nuy jëriñ ëllëg sëñ euh, Cheikh wax na ko xusuur ya xalat wal ahlu anni tafaraqat li maddihi kan kan la doon tagg ba tasaa kërëm ñu tasaare ko taqaleeku njabootam tam yoroon njaboot gu sew dem ci àll bi sonn Sëñ Tuubaa booba la ko taxoon a jóg muy liggéeyal yàlla sunu borom subhaanahu wa taala lu ko yàlla faye tey mboolem ndab lu mu taj rasulullah sunu borom duy na ko ba mu kawee njortam tasaaro googee ndab yi fees nag bay tuuru moo dem ci adduna bi yëpp ba ñuy taxawal ay kër Serigne Touba ci ñoo xam ne ñoom ñoo ko doon jàpp di ko sonal ne ko sa diini ji du fi taxawee sa jàkka yi di semmi pant yi sànni bantam yooyu ñu doon sempi di sànni tey nag moom la ñu nangu ñun di ko tabaxaat muy doon ay kër waaye ci kan ci jëwriñu sëriñ moor Mbàkke ci fullaam ci faydaam ci pëstéefam ak bëgg sëriñ Tuubaa am jaral ko lu ne nag ndax baat yu ne mi ngi koy dégg sëñ bi wax na ko sëñ Cheikh Thioro wax na ko waaye kon loolu ñun luñ ciy jàngee ñun murit nañ sukkandiku ci wax suñu xaalis bi wax léegi mooy nañ sukkandiku ci ndigal di sant ñëpp den gërëm di leen ñaanal dëgg yàlla suma xol sedd na ñaan sax suñu tijjee tegu ndax sëñ bi na ba noppi waaye bi ñaan yàlla nañ ci dajeek lépp nañ ko dajeek moom na murid yi dajeeg ñaanuk sëriñ bi mu fekk leen fa ñu nekk ñu nekk ca lal yaak ñu nekk ca hôpital yaak ñu nekk ca kaso yaak ñu nekk ci liggéeyukaay yëpp yàlla leen ñaan ngi fekk foofu ci barke Cheikhul Khadim wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi loolu moo nekkoon deuxième édition ziar générale bi nga xam ne fondation Cheikh Ahmadou Bamba Nord America mi ngi koy amal ci kanamu Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké euh, di ci ànd ak jëwriñ jii di Serigne Mamor Mbacké ibnu Cheikh Mamadou Moutada nga xam ne tey jii euh, Serigne bi leeral na ko dolli na ko leeral sax laay wax ndax moom mooy jëwriñu Serigne bi fefe ci diaspora bi dégg ngeen ko ci kàddu yi lu mu wax moom moo ko wax lu mu digle moom moo ko digle kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina ñi nga xam ne ñoo féete ci diaspora bi nañu dégg kàddu yooyu euh, te jëfe ndigal ndax murit ndigal euh, lañ ko xamee euh, jëwriñi diaspora sëriñ Mamoor Mbàkke la ma Cheikh Mamadou na ñu woy ci ndigalam te bàyyi ay tereem te xam ne lépp lum ñu digal sëriñ Touba Cheikh Sidi Mokhtar Mbàkke moo ñu ko digal lépp lum ñu tere sëriñ Touba Cheikh Sidi Mokhtar Mbàkke moo ñu ko tere kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi lii lañ leen indiloon tey ànd ceeg fondation Cheikh Ahmadou Bamba euh, Nord America euh, ci njiitu jëriñ ji sëriñ Fallou Samb ci euh, ànd ak trésorier bi sëriñ Khadim Cissé ak yeneen mbokki taalibe yi nga xam ne bàyyeekoo nañ ci yeneen état yi ku ci mel ni suñu papa Serigne Ibrahima Signane bàyyeekoo ba Touba Memphis ku ci mel ni Serigne Ablaye Samb bàyyeekoo ba Touba. Touba Chicago ak Serigne Ablaye Bamba Mbaye moom it bàyyeekoo Touba Chicago ak yeneen mbokki taaliba yoo xam ne bàyyeekoo nañ ci yeneen état ci Amérique. kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi lii moo doonoon eh, ziar général bi eh, duñ def rek lu dul sant ñëpp gërëm ñëpp eh, di ñaan li nga xam ne tey moom lañ fi taataan yàlla na wasaaroo ci taalibe yëpp julal leen njariñ te ku ci nekk tey lépp loo fi fas yàlla na fi jëlee lu kawe njort la di ñaanal ñëpp ñi fi teew ak ñi fi teewut déwén képp ku fi teewoon ren yàlla na la suñu borom taw feexal dooleel la ba nga mën fee teewaat ñi teewutoon te am yéeney teew fi déwén na leen suñu borom dooleel ba mën fee teewaat kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu leen di fàttali rek ba Fatul Bichri TV eh, ñëwoon teew fii ci liggéey boobu ñu ànd ak eh, suñu ay caméraman eh, Serigne Gora Mourid Fall moom nekk ci Bichri TV New York waaye aussi Serigne Khadim Gueye nekk ci Bichri TV Diourbel ak man mi yor kaddu gi Serigne Modou Diouf bëgg fàllu bàyyee ko ci Bichri TV Europe kon loolu moo doon liggéey bi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu بسم الإله a